lu bees tàq tàq lu bees tàq yow ku fi indi lu bees tàq tàq tàq lu bees tàq yow ku fi indi eh koro famille bi dina neex si si moom dina neex eh koro famille bi dina neex si si moom dina neex xam nga nu muy demee neex wax ni nu muy demee eh xam nga nu muy demee seex wax ni nu muy demee asan ci kër gi ak awa góoru këram dëgg la seen doom bi ci kër gi di jaay ci bu dafa wóor si bu ma gisee xale bi loolu doy na waar eh bu ma gisee xale bi eh, loolu doy na waar xaritu askan la eh, ngalam xaritu aslo xaritu askan la moom ngalam xaritu aslo bëre xaritu baay taxaat fati seen jigéen yaay doy jàppal ma eh, foofu lu fa xew xanaa booru famille bi xale yi foofu lu fa xew wala baax na woon waaw waaw toog waaw waaw na yow kon su dee doo waaw na waaw amul problème waaw xale yi yaa dem nii mi ngi mi ngi ci yoon bi na laa ne waxtaan ko jaal si la ci biir jubal foofu lu fa eh, bi. Eh, xale yi foofu lu fa eh, na ba la woon parce que ñi la waa yow xam nga ko bu baax a baax duñ mën a xam loo baaxoon bañ dugg ci weeru koor gën ko yokk. parce que man mi ba ma la indee ci kër gi ba léegi sama xel dafa dal ci yow loolu moom du nekk lu ma lay nëbb parce que lu baax lu ma lay wax du ma la ko nëbb weeru koor moom que àdduna yow nag wax ak yow mooy ah, eh, maam ñëw na seen maam ñëw na. yaay ah maam woor si na waay. Ah, ay sama sët. yaay ah waaw waaw. alhamdulilah. da defar réew mi. sant yàlla bu baax kay. alhamdulilah alhamdulilah sant yàlla bu di ah, leen namm rek. ah waaw ñoo fa ñoo ci jàmm bu baax a baax. xam nga man nag moom fii rek laa mën a wooree. waaw waaw xam nga dëkk ba moom premier naafale maa leen jiite moo tax. waaw wala su ma leen jiite ma noppi rek damay ñëw fii. waaw fii moom sa kër la moom. ah waaw waaw eh. namm naa leen yàlla. Eh, ah déwén mu fenn circulation bi moo ma tànc. oto yeeg seretu mbaam yëpp circulation bi. maam da hey. <laughs> ah maa leen raw. kii du kii du kii Momo. ah yow kon yàq na sa tur yi naan Momo. Ah, man de dëkk ma may toog ma may toog sa morom yi naan Momo soo yeggee nga nuyu waale moom. xale yi de moom xam naa ah. yow ana ana ana jànq bi. jànq bi dafa génn. dafa génn ah. ana néeg ba mujjoon na ko ba. dama fanaan si néegu jànq. dama fanaan si néegu jànq. yi gaa man de ma fanaan si néegu jànk mun maa bàyyi sama soxna yi fee ñëw di fanaan si néegu jànk yaay ñëw na nag bay wax ngeen comprendre lépp taxaw ne moom fii moom du yomb moom waaw ñëw naa de yow nag na nga bàyyi toon bu baax a baax da sama yaay dafa bon ah ñëw naa daal waaw man xam naa ne de eh, eh, ah na na ngeen dalal ah waaw baax na waaye nag man nekk si néegu jànk de moom moo si tëdd waaw ah, loolu de moom na leen leer néegu jànk moom du ma si dugg moom ah, waaw xanaa kóoru fay bi foofu dana neex de eh, neex na ba noppi